aujourd'hui avait pour unique objectif de rendre grâce, de rendre grâce à Allah subhanahu pour ses multiples bienfaits à notre endroit. C'était aussi une occasion pour faire le bilan de mi-parcours de l'exécution des travaux de la bibliothèque Kruq que le vénéré Khalif Shah Mohamed Muntaka avait bien voulu nous confier mais surtout pour nous exhorter mutuellement et favoriser encore une fois un regain de motivation de tous les membres de Tarkhir dans le service si exaltant et sanctifiant de Khadim Rasoul. Nous commencerons par nous exhorter nous-mêmes, ainsi que l'ensemble des membres de Tarkhir pour renouveler notre confiance en Seigne Touba et réaffirmer notre engagement derrière Cheikh Mamadou Bachir car il est aujourd'hui le porte-étendard de l'islam. Le vénéré calife Chamuntaka a aujourd'hui entre ses mains les clés de la victoire éclatante de l'islam sans engager les musulmans dans une hécatombe. Devant toutes les situations, il n'accepte jamais des solutions qui entraînent la division, la haine, la violence, etc. Il engage tout le monde il engage tout le monde dans la voie de l'abandon, de l'abandon confiant en Dieu, qui est le seul détenteur de la, puissance pouvant abonner notre sort. Cheikh Muntaha, la démarche qu'il a adoptée n'a jamais outrepassé d'exhorter sans relâche les disciples pour le raffermissement de leur foi et de leur engagement dans le service de Borom Touba en consolidant davantage leur lien de fraternité, afin que le Seigneur Tout-Puissant puisse nous ouvrir les portes d'une victoire, d'une victoire retentissante. En repoussant loin notre ennemi commun qui a été à jamais écarté de notre chemin, tant que nous, tant que nous resterons unis sous la protection de Seigneur. Cette mission de porte-étendard de l'islam, combien exaltante, et aujourd'hui entre les mains de Cheikh Mohamedou Muntaha. Puisse Dieu lui accorder longue vie et une santé sans commune mesure. Nous lui devons obéissance, soumission inconditionnelle, attachement indéfectible, allégeance sincère, investissement sans réserve pour exécuter toutes ses recommandations et une solidarité agissante pour mener, pour mériter son agrément qui sera notre seul viatique le jour du jugement dernier aujourd'hui c'était aussi une occasion pour renouveler notre engagement et pour mériter la confiance de Cheikh Mamadou devant la faveur imméritée d'être choisi par lui pour construire cet édifice majestueux qui va accueillir exclusivement les Kassaïd de Borom Il nous incombe de savoir que c'est un privilège immérité, devant lequel nous devons nous appesantir. Surtout sur l'attitude que nous devons avoir euh, pour, éviter tout comportement qui frise l'incarnation. Isboutarkhia a aujourd'hui aussi l'insigne honneur d'avoir dans ses rangs les meilleures équipes de conservatoire un chant religieux sur les œuvres de saint thomas qui déclame les Khassaïd. Ces équipes ont réhabilité les, mélodies les plus originales et authentiques des doyens d'âge sous les auspices de Brom-Thomas. Sur ce, il est aussi nécessaire d'interpeller tous les membres sur l'attitude qui nous permet au moins de montrer qu'en dépit de notre indigence liée à la nature humaine, nous serons comptés parmi les reconnaissants. Nous ne sommes en rien supérieurs aux autres frères condisciples. Nous n'avons aucun titre de prééminence sur les autres pour mériter cette faveur qui, en vérité, relève uniquement d'une assistance providentielle de Dieu. Nous devons donc, plus que jamais, mériter le poids de la responsabilité qui pèse sur nos épaules et la confiance placée en nous. C'est comme pour dire que les clés d'un dépôt d'armes nucléaires pouvant décimer toute une génération ne doivent jamais être laissées entre les mains d'un homme lunatique, oublié, négligent, discret, vindicatif, provocateur et insouciant. Autant de vices et de tares qui doivent, qui doivent être réprouvés jusqu'à la dernière goutte de notre énergie car nous ne devons pas nuire à notre prochain, tout en croyant être au service de cette touba Assurément non, car ce serait une conduite en porte-à-faux avec les valeurs de l'islam réhabilitées par cette toi. Cette métaphore va nous servir de tremplin pour exhorter vivement tous les membres de nos équipes de conservatoire en chant religieux, chant religieux sur les œuvres de saint touba ils doivent être des modèles, les membres du conservatoire. Ils doivent être des modèles et ne pas se considérer comme des élus au-dessus des autres. Ils le sont certes, car le mérite de la déclamation des Hassid, des sera véritablement connu, ne sera connu que le jour du jugement dernier. Mais ils doivent l'ignorer et rester humbles pour préserver cette grandeur. Le conservatoire de dans l'écosystème du mouridisme au plan mondial est devenu aujourd'hui le laboratoire par excellence des daïres en ce qui concerne la déclamation des Khassaïd. Nous profitons donc de l'occasion pour vous rappeler les règles de bonne conduite qui vous serviront de bouclier devant toutes les formes de tentation. Pour le répertoire de Khassaïd, conformez-vous toujours avec les doyens d'âge. Évitez de fuiner pour chercher des titres de Khassaïd dont vous ne maîtrisez pas le caractère autorisé ou non, ainsi que leur authenticité. Les khalifs et héritiers de notre vénéré recherche se sont toujours battus pour encadrer la calligraphie et la reproduction des chassaïs, permettant ainsi aux disciples de disposer d'un vaste, vaste répertoire inépuisable et conforme aux recommandations. Pour les mélodies, il faut insister sur l'originalité, préférer les mélodies qui étaient scandées chanter devant le chef vérifier la conformité avec les règles de la métrique arabe. Il faut donner plus de rigueur dans la systématisation des mélodies, éviter de tomber dans le piège d'une course vers les nouveautés. Quant au support, il faut revaloriser la calligraphie et la vérification. Il faut promouvoir les outils d'accompagnement avec l'innovation technologique. en ce qui concerne aussi les bonnes manières, aussi bien pour la déclamation des Khassaïd que pour l'écoute, il faut être pour pur, il faut être toujours pur, intérieurement, extérieurement. Avoir de la circonspection et de la concentration. Se tourner résolument vers Dieu et ne viser que sa face très sublime. Éviter de déclamer des Khassaïd pour plaire à quelqu'un en dehors de Dieu ou pour gagner de l'argent ou le faire dans un milieu profane. Éviter toute forme de rivalité profane entre les couleurs, courelles. En résumé, il faut savoir que les membres du conservatoire sont d'abord des membres des Tarkia. Ils doivent tous incarner les valeurs qui sont à la base de l'adhésion du membre, à savoir servir saint Le challenge est donc de redonner la priorité à notre statut de membre pour tous les agents du conservatoire, comme tous les autres membres avant toute chose. Hizb étant une organisation dont la vocation est uniquement de servir Sintouba. Toutes les administrations locales de devront donc accompagner leurs équipes de conservatoire pour asseoir ces vertus qui restent les leviers sûrs pouvant nous attirer l'agrément de Sintouba, la pureté de cœur, la sincérité, l'intégrité, la fidélité, le sens de la transparence de la transparence dans les procédures au sein de notre entité, ainsi que la reddition des comptes. Sachant que ce qui est entre nos mains ne nous appartient pas, mais constitue un patrimoine de Saint-Touan. Chers frères condisciples, permettez-moi d'abord d'aborder les enjeux qui nous interpellent pour relever les défis de notre unité indéfectible. Il y a d'abord l'obligation de répondre à l'appel du Khalif général de Mourides chez Mohamed Lui qui a réussi à réunifier la grande famille des islamistes, Mais qui a aussi réussi cette prouesse dans toutes les sphères du moudisme et sur tout l'échiquier social au Sénégal. Nous savons tous que cela est aujourd'hui la source de la stabilité dont nous bénéficions. Notre défi majeur est avant tout de retourner à l'orthodoxie musulmane et de nous détourner des innovations blâmables. Nul ne peut obtenir l'agrément de Seigneur Muntaha en dehors de cette conduite. Aussi bien, donc, avec bien sûr un attachement permanent au service de Khadim Rasoul. Simon bihablillahi jamian wala la tafarrakho. Wa ta'awunu al birri wa taqwa al ismi wala udwan. Wallahu yuhibbu lazina yuqatiluna fi sabili saffan masous. Cheikh Abdullah Mbake... dans une rare sagesse, nous avait dit ces versets coraniques renferment d'innombrables faveurs. Suratul Imran, verset 103. Suratul, euh, euh, Surat la table. Suratul Maïda, donc verset 2. Surat 61, verset 4. ces avantages sont au nombre de trois. les bénéfices de l'estime de Dieu, l'assurance de notre propre sauvegarde, la sécurité d'un asile offert par Dieu à l'abri de Satan. Chers frères condisciples, aujourd'hui, il urge de fortifier les liens de fraternité entre toutes les entités au sein de la communauté mouride, d'éliminer les frontières et de se soutenir mutuellement pour la réussite de tous les objectifs respectifs qui entrent dans le cadre de la promotion de l'islam. Quelles sont les leçons à tirer du bilan qui a été présenté, le bilan de mi-parcours des travaux de la bibliothèque Kerkhassidei Venons-en maintenant à quelques observations sur le projet Kerkhassidei, dont mes collaborateurs ont présenté un bilan détaillé. Nous ne pouvons toutefois parler de ce grand projet sans rendre d'abord un vibrant hommage à un homme qui a consacré toute sa vie au service de Cheikh Khadim, Seri Atou Il a eu l'insigne honneur de porter ce projet que Khassidei puisse l'accueillir dans sa miséricorde et l'honorer éternellement. et la conception de la grande bibliothèque Khassidi à l'intérieur du complexe Cheikh Ahmadou Khadim pour l'éducation et la formation. Là où nous nous trouvons aujourd'hui. Avant d'avenir à cet énorme édifice, nous vous convions à découvrir les qualités de ce grand homme. Il lui a été consacré pour lui rendre hommage. Nous tous, nous avons juste pays ce point, le nom restera jamais gravé dans les annales de l'histoire. Il est distingué comme un travailleur infatigable, imbu de piété et de un combattant intime pour la preuve de l'éducation islamique authentique. Un homme véridique, doué de discernement et incorruptible. Un exemple de soumission inconditionnelle envers l'autorité suprême du mouridisme. Un fonctionnaire permanent au service du calife général des Mourides. Un grand artisan dans la restauration des mélodies authentiques du conservatoire en chant rédigé sur les œuvres, sur les de Khadim Rasoul, Un homme d'une grande carrure intellectuelle et d'une dimension culturelle exceptionnelle, auteur d'une grande production littéraire. Un géographe qui maîtrisait bien les enjeux de la planification urbaine de Touba. Un conservateur des valeurs authentiques de la famille musulmane un homme qui maîtrisait la technologie et la science, mais qui les mettait au service de la foi. Un manager hors pair, toujours soucieux des normes qualité. Un homme d'action qui défendait toujours les valeurs de travail, qui interdisait l'oisiveté et la paresse. Un grand animateur culturel et un organisateur d'événementiel restait inoubliable au sein du politisme un homme qui regorge de talent artistique inné et qui a inspiré les travaux de construction de plusieurs édifices au sein de la communauté maurite. Puisse Dieu l'honorer éternellement dans son paradis. Parmi les leçons à tirer de ce bilan, il faut aussi évoquer le contexte très contraignant de la pandémie de Covid-19 le démarrage des travaux. Jusqu'à presque très récemment, nous étions en période de pandémie de la Covid. Mais cela n'a pas entravé les travaux. Ce qui ne fait que témoigner de l'ardeur et de la foi inaliénable qui ont toujours animé les membres des Outarriens, qui ont réuni dans cette période un peu moins de 1 milliard 300. La présentation du bilans techniques et financiers ont fidèlement rendu compte de tous les détails des contributions. Que le chemin parcouru depuis le 20 décembre 2019, date à laquelle le vénéré calife nous avait recommandé l'édification de l'ouvrage. Ensemble, nous avons tous, nous avons tous franchi les différentes étapes que sont les études et conceptions techniques l'installation du chantier, les travaux de terrassement, les travaux de fondation, les travaux du sous-sol, les travaux de, de, de rez-de-chaussée, le premier et le deuxième étage, l'auditorium, la suite Khalif, etc. Les chiffres qu'affichent les tableaux lumineux de l'Agence centrale de l'économie et des finances disent l'espoir et confirme que les membres sont réengagés dans la voie de la dépense 9 euh, verset 111 quelle est la place du monument Kir au sein du complexe Amadou Khadim Le complexe Amadou Khadim pour l'éducation et la formation a été évalué à 37 milliards de francs CFA. Il comprend 70 immeubles 70 L'Institut Coran, coranique, le Majalis, les UFR, les centres de formation technique euh, et professionnelle, la mosquée, le centre de santé, le rectorat, la bibliothèque universitaire. La bibliothèque universitaire est différente de la bibliothèque Kirkhasibéi. Les restaurants, etc été lancé donc en 2019, 2005, de est de 2 de 2 euh, je pense que le prix d'excellence, la prééminence entre tous les bâtiments revient à Kër il y a ne l'œuvre sont estimées à 1 milliard

Au nom donc de la direction d'art, nous invitons les membres à hisser encore plus haut notre ambition, à nous investir davantage pour respecter d'une part les délais de réalisation, à toujours en ligne de mire les propos du calife qui, parlant de la considération envers le bâtiment, avait dit, même si vous arrivez à le revêtir ce ne serait pas de trop. Ce ne serait pas de trop. Une exhortation de taille qui, comme un tableau lumineux, ne cessera de clignoter devant nous. Puisque nous créons dans cette combien sanctifiante, combien exaltante, et accorder une longévité sans commune mesure à Cheikh Mamoun Muntaka et nous combler de ses grâces et de l'agrément de Khadim Rasoul. wasalaamualeykum na ngeen ma jéggal jàng gi ma jàng tubaab yi tubaab moom aw làkk la la sëñ la sëñ euh, euh, Moussa Ka waxoon ne lu jóg ngir rasulillah yi baatin ba sax xorom kon lii rasulillah waaja waaye ji muy xaadim rasul moo ko tax a jóg dama bëgg daara yi ñi ci nekk école ñi ci nekk université ñu xam ne ñu ngi jàng téere Karl ñu ngi jàng téere yi Engels te ñu ngi jàng téere yi Lénine ñu ngi jàng téere yi euh, yu bëri yoo xam ne ñi ay tubaab lañu ñi ñeneen lañu waaye dañoo war a xam dëgg ne làkk yëpp war a tagg sëñ Tuubaa làkk yëpp ñoo war a tagg sëñ Tuubaa loolu rek a tax ma def ko ci assemblée su ngeen demee da ngeen koy am enregistré ngeen ko su ngeen ko enregistré na ngeen ko saraa waxtaan ci ndax du man maa leen ko bind man dafa am lu ma yor loo xam ne yéen ñëpp laa ko yoral waaye ñëpp laa ko bokkal waruma réeroo ak sëñ Mbacke Diouf mii waruma réeroo ak sëñ Yacine Seck mii sëñ Omar njaay mii waruñoo réeroo sëñ Ibrahima Keita mii waruñoo réeroo te am na ay jataay yu ñu nos yoo xam ne du ñu tay du ñu sonn fu ñu ci war a gisee ñu ngi ci gisee di waxtaan waaye rek de luñ fa takkee luñ fa nosee nit ko ñëpp di respecté. ndax Nations Unies sax boo fa demee di nga gis lu ñu wax loo xam ne ñii dañ koy gisee ñii ñeneen gisee ko neneen waaye bu ñu demee ba gis ci ak déggoo boobaa ña ca nosu ñëpp dañ caa war a wéy fii duñ fi digle dara lu dul luy defar ma di leen waxaat ne leen benn kuréelu Hizbut Tarqiyyah bu ma bu ma tasaare walla dindi ko wala ne dama ko fi jëlee amut man aw ma sañ-sañ bu may def damaa bëgg rek gaa yi gën a booloo te dafa am luy rafetal suñu liggéey mooy kuréel yi bu ñu àndul tey jii man ñi may jox café am man mënumaa xàmmeti léegi ki ci nekkoon Hizbut Tarqiyyah Daaru Xudoos ak ki ci nekkoon Hizbut Tarqiyyah Aslem wala Dakar mënatumaa xàmmee ci ñi nekk sécurité mënatuma koo xàmmee ci aménagement yi mënatuma koo xàmmee ci waañ wi mënatuma koo xàmmee feeñ fana des kuréel yi kon liggéey baa boobu yéen a ko yor boole leen seen bopp am na nag gëm naa ko def ngeen ko màggal def ngeen ko gàmm mais dafa am leneen ndigal lu ma leen joxaat dama ne ñu nekk dakaar dëkk Dakar nañu bañ a bokk ci kuréel bu mag bi moo noppi bu waa Dakar di répété ñu mel ni dañoo xeeb loolu ku ne da ngay amal njëriñ sa daara door a mën a bokk ci kuréel national ak international kon dooleel leen kuréel yi ci daara yi te taxawu leen ndaw yi ñi mën a jàng ba noppi nañ taxaw ñi gën a faw ndax lii lu ñuy jàllale la sëñ Massamba bi muy sos kuréel ñëpp dañ ne woon kii li muy def mënta ne ñetti nit wala ñaari nit ñuy jàngandoo loolu nan la mën a àndee xanaa duñu ànd mu boole leen ba ñu doon fukki nit yoo xam ne ku ca ku ca absenté rek ku ca manqué sëñ Tuubaa laajte la ñoom sëñ Mayib Guèye ah, ñoom sëñ Ibra Fall Buuba ah noonu defe naa bu ma jëloon si Ablaye Diop wala sëñ Matar Diène da koy tari fukk lañu ñu woon waaye nag tey jii ñun ñun ñooy ñun ñooy ñi nga xam ne dañoo doon na liggéey boobu sëñ Massamba doon def tey jii fii ci barab bii lu mat junniy nit baa bokk li ko tee mat lu néew lay doon junniy nit jàng nañ fa li mayen jàng nañ fii li mayen Bachir ci daaju sëñ Massamba mais li mayen Bachir mayi sëñ Tuubaa yu jóge ci suñu borom boo jàngee tarjumaan bi muy muy waaw muy li ma xat boo jàngee tarjumaan ji di nga xam ne ku ko jàng ak fuñ ko jangé rasulullah sallallahu alaihi wasallam lu mu doon def da koy bayyi dina tew ndax mbégte la ma sëñ Cheikh Basirou mbacké mum Cheikh bukhar waxon ci magal gi ñu jang mu xaddimaat mu ne ah dama jappone fan wéré minute la fi def waaye mënumaa bayyi mu xaddimaat bi di di di juk di dem ndax ku bax waxna ma ne fuñ koy jangé rasulullah sallallahu alaihi wasallam day tok kon man duma juk di dem te bàyyiwuma ba mu xaddimaat bi jeex kon laxat jaakum muy limaahin basirin bu ko junniy nit jàngee junniy limaahin la ñoo ko jàngandoo ànd ko ci benn baat ñun ñu jublu ci kañ sëñ Tuubaa sant ko jublu ci sant suñu borom ci boole gi ñu boole sëñ Tuubaa waaye nag sant sëñ Tuubaa ci cër bi mu jox sëñ taxa te may ñu ñu fekke ko mu sédduñu ci waaye gars lii neex na de université bii sëñ Tuubaa bi mu bind li maayin basiiran boobu seng sax amul seng amul mu ne bil Moustapha lii banaa lii banaal xuddoosu yàlla suñu borom al xuddoos mu jàng muy bii jàngukaay bii daf ko fay bàyyi wax ne yàlla may na ko tabaxal na ko banaa moom tabax la seng amagul ngay wax tabax yàlla suñu borom tabaxal na ma moom moom yàlla suñu borom bii al xuddoos mu sell mi madrasata mu jàngukaay boo xam ne bihaa yësuwulul asa lor ci la fi jógee wal jëm ak réer ci la fi jógee wal kamadu yenn a téere ne kamadu téere ne kamadu man du ma ko lijjanti waaye mooy lan testé si yeeg fitna yi rek testé si di dang da dang-dang yi rek te liggéey wut doo ko am yéeg boo xam ne doo xam fu muy fu muy mujj loolu daf fiy jóg mooy la mag doon wax di nga yor fukki junni bëgg koo dimbali ci Tuubaa gi doo gis koo dimbali dafa am lu des rek te ci ñun ñii la nañu sët bi jéem te dund ko waaye lu jóg lu américain yi xewle nga bëgg koo dund lu nasaraan yi xewle nga bëgg koo dund te li mag ñi doon dund ci sëñ Tuubaa nga defe naa dafa xewi ku ko def ku ne tardé na yëfit na dem bàyyi la kon looloo ñu dajale loolu moo ñu dajale may sant ñëpp di sant ñëpp bu baax waaw di leen wax na yéen kuréel bi kon liggéey baa ngoog waaw na ngeen xam ne bu ñu leen xoolee ngeen jàngandoo ñu xam ne Hizbut Tarqiyyah rek la li sëñ li sëñ Issa Fa waxee rek loolu xam leen ne ndamal lislaam te nee na nag liggéey bi day gën a am doole.

juróom fukki nag teg nañ ko ci loxol sëñ Muntaxa ñun juróom benn fukki nag astafurlah juróomi téeméeri xar teg nañ ko ci loxol sëñ Muntaxa te jotewul dara ak togg yi ñu togg di ko ko yóbbul kon ñun loolu day nuru lu bare mais du dara ñun war nañoo mën a rangale ñetti junniy conteneurs yoo xam ne ñun Hizbut Tarqiyyah rek ñoo koy indi yoo xam ne màggal danga ko tax a jóg te lépp àddiyee Sëñ xasida sax yi nga xam ne ñu gaa yi dañ koy jaay wóor na yàlla laaloo ñu bi ko liggéey dañ ko war a joxe te mu doon mbind moo xam ne bokk nag yi jaay yàkkamti te fees dell ki yoo xam ne xooluñu ko mbind mu tooy loolu ñu war ñoo def loolu dañ ko war a topp ba mu wér ba noppi ñu koy maye kon liggéey ngi suñu kanam xanaa bu ñu boolee suñu doole waxuma la ñaari at ci kanam waxuma la ñetti at ci kanam xanaa déwén képp bu ñu siyaaree sëñ bi yoonu murit yépp xam ne garde vous jot na armée bi jóg na militaires yi jóg nañu dëgg jàkkaarloog sëriñ bi waaw di ko ko wax waaw waaw karimun ma tee tam waaw karimun ma tee yem ndax ah ma dee tam ndax yam ndax ka rabbu waaw noo ko waxee rek dama la bëgg wax de dañ koy kañ rek li maayin yéeg muqaddimaat yéeg Ah, ah lépp rek loolu dafa mënul ñàkk parce que actualité bi am njëriñ mooy ki mët a kañ boo ko koo xam ne boo ko kañee yàlla kañ la loolay actualité boo ko taggee yàlla tagg la koo koy actualité waaye di sonnal sa bopp ci ne lii la tubaab yi wax ak lii la nangam assemblée nationale lii la wax ak lii la nangam loolu lépp li muy baax baax baax nañu gën a doon li ñu doon te nag bu ñu gënee boole suñ bopp xam suñu bopp iblis dinañu war gën a ragal dinañu gën a ragal waaye suñu ñemee rek dafa dafa di mën naa jaar ci ñal yi ci suñu biir di am ñu muy waxal te loolu mën naa ñàkk maa ngi wax la ma waxoon ku mës a def benn fan ci Hizbut Tarqiyyah ba bisub tey membre Hizbut Tarqiyyah laa la boole moom laa la jàppee sa benn fan boobu ma ndax yàlla gërëm na ko te man fan fanweeri at ak juróom-ñeent def naa ko fi te sama dara leeruma sama dara doyuma kon su ma xamee dara ci sëriñ bi ku ma gis ne mës na fee yendu dama laa war a ragal dama laa war a wekk dama laa war a fonk kon membre yi jëkk bindu ba bisub tey maa ngi leen tàllalaat loxo liggéey ngi nii boo xam ne maamu Youssou Diop moomu ko yoonu Youssou Diop nekku ci sëñ bi da koo gis rek mu nar a dem sawara mu dimbali ko indi ko ci liggéey bi amul lu mu mën a bàkkoo lu sëñ bi boole na ma ci dongo yi mag Euh, këlbu bi àndoon ak asaabu kahfi noonu laa jàppe sama bopp lii laa gëm lii laa gëm ci sama sama bopp te dara nag dara mun koo dindi sama bopp noonu laa jàppe sama bopp ndax loolu dal sama xel waaye nag ñëpp laa tàllalaat loxo dañ ñëw ñu ànd ci liggéey bii ñu ànd ci liggéey bii junni nit yi jàng tey ji li maayen basirin bés dina ñëw màggal dinañu wër jumaa ji dinañ ëpp ñetti junni nit yoo xam ne ñëppay jàngandoo di jàng di tagg sëñ loolu mooy màggal gi malaayka yi di dégg yàlla suñu borom di dégg ñu baax ji di dégg looloo tax bis bi jóg loolu la kon su ma ko toppee li dal sëñ abou daf may dal bàyyi leen ma yemale ko fii waaw xaadim lépp li mu wax lépp ak ci suba ba léegi li ñu fi wax lépp sëñ bi da koo tënk ci benn bayit hërëba min shi'riya iblisul marib wa bi xasaidiya yahtadil murid sëñ tubaa nee sama prononciation la iblis ñemekut mooy shi'r bi muy wax ci iblis shi'r la utiliser mais bi muy wax ci xasida yi bi muy wax ci murid yi xasida la utiliser gis nga il est très technique sëñ tubaa il est très technique bi muy wax ci iblis chenre la utilise daf ne ni may waye ni may waxe ni may waxe man sa ni ma koy génne iblis ñemewu ko te ci samay xasida la murid yëpp yu jube danañ dem ba benn 18 safar à 10 heures ñëpp jàng na rabbi bi maa yosoo kon li ma li may bañ a fàtte rek mooy bi ñuy présenté cellule à l' étranger wax dëgg yàlla dafa xat mais waroon naa kañ daaree états unis bu ngeen seetloo daaree états unis membre yi ñu fa yor du caagi lim bu bari waaye dañuy borom pas-pas kon sëñ Eliman Sarr sëñ Bada Thiam sëñ Modou Sam sëñ Jibril Diallo sëñ Massamba njaay sëñ Adama Coulibaly sëñ Aliou Diouf ah bari na de sëñ Omar Diop sëñ Mam Maram njaay ñoom ñëpp kenn desul soxna yi ay soxna Farimata Ñang ak ñeneen ñu bëri ñi ñëwaat nga xam ne tey jii ñoom ñëpp dañoo boole seen bopp waaye boo leen doon lim du caagi di lim bu bare mais liñ jëf defe naa bi ñu ko tuddee fii sànq ñëpp xam nañ ne ñi jàmbaar lañ soixante quinze millions de francs CFA liggéeyagum nañ ko ci bâtiment bi ci ñaar fukki weer yi loolu nag mën naa wax soixante quinze millions de francs CFA jotewul dara ak seen liggéey màggal du siwul dara ak seen yeneen liggéey yi nga xam ne ñu ngi koy def ñu ko war a defee loolu nag moom war naa ko wax sant leen bu baax France même chose waaye bu ñu gënee booleeg njabootu sëñ Mbàkke nga fa ne bu gën a boole seen bopp defe daa gën a baax waaye ña fa ne jàmbaar lañu Italie noonu bàyyi góor ñoom ñaata lañ liggéey lu 72 millions te Italie juróom fukki membre amuñu ko fa mu tuju juróom fukk lu leer lay wax ay gaynde la yoo xam ne man dama bëgg ngeen xam ne Hizbut Tarqiyyah ay nit ñoo xam ne dee ak dund lañu yemale liggéey sëñ Tuubaa rek leen ñor su yomb sëñ bee ko yombal mais ñun xalaatuñu mu yomb ndax juróom fukki nit bu ñu la liggéeyalee soixante-douze xam nga ne moos kenn ku ci ne def nga loo mën ak loo mënut ndax dangay jël daayira yi nekk états uni yëpp wala doon boole ay téeméeri téeméeri téeméeri téeméeri daayira te daayira boo ci jël ay téeméeri téeméeri téeméeri nit lañu waaye wóor na seexul xaddim ñii liñ mën a génne keneen xalaatu ay nit ñuy xaru képp nga leen di gisee te jox sëñ tubaa ku daan xaroo ci nekk sëñ tubaa daa war a ànd ak ay sa jëf waaye damaa bëgg ngeen xam ne yaatal ji moom la si muntaxaa bëgg kon nit ñëpp yaatal nit ñëpp ubbi bu ñu ko defee dërëm dërëm sax dina weesu liy juy wax ni waxatuma laat ay borom pas-pas daje dërëm dërëm rek dinañ lool soxna yi kenn mënu leen moo xam Dakar la moo xam Touba la moo xam Kaolack la moo xam yeneen région yi yëpp foo fi jël soxna Hizbut Tarqiyyah exemple la ñooy mën ca waañ la ñooy taxaw njaboot gi loo loo wax ñu jëfe jëfe seen ndigal borom kër nekkuñu ay jigéen ñu complexe yoo xam ne bu seen bërëm borom kër waxee ñu ci teg ay baat di tubaab tubaab duñu façon boobu de ñaar ak ñett mën na mën ngaa yor ñaar ak ñett ba ñeent yor leen ci benn kër loo leen digal ñu def loo leen tere ñu bàyyi bare na ñuy laaj ci réew mi laa wax wóor na sëñ Tuubaa ñemewuñu boole ñaari soxna ci genn kër bu ñu koy def kër gi di tas mais parce que sëñ Tuubaa rek moo la mën a garantir nga mel noo xam ne da ngay doon nitu dëgg li ngay def kenn mënu koo soppi waaye wéet wéet jigéen mu rafet ba nga koy dig jumaa ji te wër na jumaa ji mënu koo jox loolu dara da ko jar ci àdduna kon mu ngoog leneen li ma ciy dolli mooy xale yi kon jigéen ñi ñoom mënuñoo jël kàddu di wax waaw jigéen ñi mu kon mënuñoo jël kàddu di wax waaye kañ nañ leen jàmbaar lañu bu génne woon état wax la li jigéen ñi jëf di nga xam ne bare na waaw boo jëlee xale yi gis nga xale yi feeñu ñu fii de mais ay xale lañ yoo xamante ne fu seen morom di lijjantee lu lu ñu fowee ñoom ñu ngi lijjanti lu ñu def ci seen Tuubaa ñun bu ñu gisee ñuy dajale ay nag jëm màggal ñoom dañ naan nañ dajale mu tar wala tomate xale lu mu néew néew wërsëg la muy am moromam di ko jëndee ji loo xam ne lii cent franc la wala kereem boo xam ne fukki dërëm la moom mu dajale ko di ci jënd mu tar xam nga ne ku gëm sëñ Tuubaa kooku mel na nii sëñ Ibra ñaan moomee nga xam ne ba muy jox boppam sëñ Tuubaa lu ndaw la nga xam ne ndigalal way jur moo ko fi jëlewaat dem waaye sëñ Tuubaa moo ko woo woole xamal leen neneen ci man mii ngeen war a ne muy sëñ Thiala ci la joxe boppam sëñ Tuubaa kon yoonu murit a googu di sant ñëpp di ñaan ana sëñ Ablaye Diop ak sëñ Matar waaw bisimilah yéen ñaar bàyyi na dend waaw sëñ Ablaye dendal ak sëñ Matar ngeen wax ñaari baat wax ak kuy jàng xasida ngeen wax ak ñoom ana sëñ Souleymane Fall ana sëñ Joxaane sëñ di Joxaane ñëw leen yéen ñeent ñii man dama leen a doyloo jël conservatoire bi teg ko seen loxo sëñ Souleymane andi nga dina leen alamande ah waaw mais yaram bi nag yaram bi dafa xawoon a kii sëñ Jili Ndiaye kay remplacé sëñ Joxaan bi kay toog nii waaw waaw góor si Ablaye ay ca bisim lay jël leen ngeen ngeen soññ gars yi Ban Plata bismillah barke sëñ kon ñu ngi nuyu ñëpp tey ziyaare ñëpp tey jéggul ci kàddu yi yaakaar naa ni ko sëñ Yuusu waxee leer na kàddu gi moom benn la mooy dañoo doon ay murit doon ay taalibe di sàkku ngërëm sëñ Touba kon nag li ñu indi si daara ji mooy jëfe ndigal bàyyi tere nu ma ko faree dox nag ay mursal lañ mursal nag mooy kuñ ni ñun nag yaakaar naa jataay boo xoolee muy man muy si mu joxaane muy si Matar Jenn si Souleymane Fall ñu leen teg sa bopp ba ñu ànd ak ay euh, lu tolloog ñeent fukki kuréel ak benn jiite leen si liggéey bi loolu nag du suñu njàmbaar du suñ juddu du suñ askan lépp ndimbal sëriñ bi la kon nag euh, nañ moytandiku mu ji puso mu réer ñi wax nii ñoon sëñ Yuusu Jóob bi fi nekk ñoom seen Lam Diouf ñoon seen Musaa Njaay ñoo ngànkoon liggéey bi kon nag dafa dox ba egsi suñu loxo ginnaaw dafa egsi suñu loxo nag nañ fexe nag ba ñu nekk si suñ ginnaaw ànd ñu liggéey sëriñ bi bu ëllëgee euh, bu ñu koy nettali ji fu ñu taxaw dañu mën a sikki kon nag ay mursal lañ mursal nag mooy ku ñu àdduna si yëpp ñu ngi bàyyi xel luñ sol gone yi mel ko lu ñu naan gone yi naan ko luñ fu ñu tëddee nu ñu doxee gone yi doxee ko kon nag benn googu sëñ Muntaxa wax yaakaar naa euh, euh, tey moom jeex na kon nag ndigal li mooy jëfe ñu nekk Dakar àndul doon benn ñu nekk Touba si ndigal njiital si Matar jenn àndul doon benn kuréel national gi si Matar genn nee naa ko place bi ñu toog. Euh, Sëñ Tuubaa la njër mate na ko mën na koo doon kon nag ànd na yow nga nekk suñu kanam ñu ànd yoo topp yu liggéey Sëñ Tuubaa jërëjëf. jërëjëf sëñ yow itam li nga li rek noonu loolu nekk ci yow nekk ci ak xasida yi ak mbaaxu Sëñ Tuubaa gi moo la topp ni mu toppee njabootu Sëñ Tuubaa gi kon jànk di xasida yi war ñoo sant bu baax a baax di sant sëñ jëwriñ sëñ Yuusu bu baax. te xam ni kàddu yi dégg nañ ko bu baax soññe yi dégg nañ ko bu baax ci melokaan ni ñu war a mel ak ni ñu war a yokkee sunu dogu ak suñu jublu sëñ bi ndax gone yi ni ko sëñ Ablaay waxee ñun rek la ñuy ñu ñun roy ci lépp kon responsabilité bu rëy dafa dafa aju suñuy wagg kon jëwriñ loolu fas nañu fas fas nañu koo gàddu bu baax a baax parce que fas nañu ko yéene ànd ak gone yi bu baax a baax ndax amuñu dul ñun kon jànkatu xas day ma barkeelu ay xasid ay ay bëy rek sëñ bi li wax ne bismillahi rahmaani rahim haajat qasaa'idi quluub alxamala lil harshi وهي بشر للكملة هاجت قصائدي قلوب الأنبياء مع الملائكة هند ربيا هاجت قصائدي قلوب جند من له البرايا والفحال والزمن قصيدتي من معجزات المنتقى صلى الله عليه من هداه وانتقى وخنا قصيدي دي يينgal xolub malaika yi xamne dañu yenu aras xass day day yëngal seeni xol nee na xaside yi day yëngal xolub lan bi yaaw yi wax yow bu soron lil kamala daal di wax ne xaside yi day mux ci say muntaxaa la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ci mux ci say yonente bi la bokk kon li ñu am rëy na lool li ñu am rëy na lool nañ góorgóorlu te laxasaayu te fas seen doon yi taalibe bañ a bañ a a jéem a doon lenn dudul ay taalibe rek ni ko jëwriñ sa ñu soo waxee léegi kon dégg nañ soññe bu baax a baax fas nañ ko yéen a gone ànd ak gone yi jërëjëf asalaamaaleykum aousu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barke borom Tuuba xanaa da barkeelu rek jëfe ndigal li ndax xasida yi sëriñ Tuuba yi nekk ci du njàmbaar ak njàmbaar mayewu ko sëriñ bi bind xasida yi waaye mooy tànn ñu koy jàng ni mu yebale woon ma Masamba bi mu koy wutal jàngkat yi ci baati noonu lay tànge jàngkati xasida bëgg a jàng xasida taxut nga doon ab jàngkat kon nag képp koo xam yaay nettali xasida am na yu bari yoo xam ne war nga ko sàmmoonteel ci sa jëmm ji nga xam ne fépp foo mën a nekk fu nekk sëriñ baa ngi jàkkaarloog yow nii sunu borom di jàkkaarloog yow nga gën a warmaa sa jëmm ci lépp loo xam ne mooy jëf yu sell yu tege ci yoonu siraatul mustaqim kon ñu ngi ciy soññaat ñu yëpp xam ni njàngum xasida du àdduna ak jaamu yàlla rekk la boo duggee ci jàkka ja di jaamu yàlla boo génnee sëlmal nga boo dee jàng xasida boo noppee fa nga ko doon jàngee sëlmal nga moo ki aj màkk bu ajee alhaaji lay doon waaye bu fa jógee turam war a dellu ci moom kon noonu xam ne xasida yi jaamu yàlla la liggéeyal sëñ Tuubaa la bañ koo jàpp ngir àdduna wasalaamaaleykum wa rahmatullah dugg nañ ci biir kàddu yëpp kon mooy euh, ndigal li moom yaakaar naa dama ko waxee léegi rek sëñ Youssou wax na ko léegi waa kër sëñ Massamba sëñ sàmba moo tànn kuréel gi doon ko saytul sëriñ bi loolu nag yaakaar naa ña fa nekkoon doon ko defal sëriñ bi ba tey dañuy tudd seen i tur tur yooyu nag dañu àndoon doon benn ah ku nekk lu nga yéene sa bopp yéene ko sa moroom bañ ne ku si manqué ñu sëriñ bi laaj sëriñ bi da ko tudd. dana man ibro Buuba Moussa Diagne Seexu Ndaw Ali Silla Modou Kan Dia Makhoudia Silla Ibra Samb Alaj Seck Ousmane saw nee na fukki yi ku ma sawar manqué mu laaj la kon nag ñi ñaan si barke barab bii comme noonu ñu ko tuddee ah bu ñu tuddee sëñ Matar Diène sa bopp ba sëñ Modou Jaxaane sëñ Jiilim Njaay sëñ Souleymane Fall noonu ko dee bu kenn manqué kon nag noonu lañ ko fas yéene lii su matt la du matt sëriñ Yuusu du matt sëriñ Mbàkke Cuun du mattul keneen ñun su borom jiital ñu nekk sa kanam kon nag nañ fexe ndigal li ñu joxe nga xam ne sëñ samp teg ko sa kanam buy wax moom lay waxal buy laaj moom laaj buy yónni moom lay yónni kon nag ñun nañ teg sa kanam kon nañ fexe lii ñu joxe ndigal mën naa nekk ndax sëriñ bi dane dama ko seet ba xam ne mën naa nekk te dara mënu ko yàq kon nag na ko waxee nag kàddu Sëñ Tuubaa la wax te kàddu Sëñ Tuubaa lu mu wax day am kon nag mboolem kuréel Hizbut Tarqiyyah ña nekk Njaareem ña nekk Gosaas ña nekk Ñaaxar benn lay doon jekk nañ dañuy jël suñu oto daara ju si ne danañ fa yandu fanaane fa boolee ñëpp mu doon benn incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu bokki daara ji yépp di sant bu baax ci teebaay bi di sant yàlla sunu borom bu baaxit ci yéen ndax nun day ba ngeen jógee rekk lanu sunu borom gindi ci yéen mësunu am kumpa ci yéen loolu nag kon yàlla lañ koy sante kàddu yi ma fi ta tàbbal jëmm ji nga xam ne mooy sëriñ Touba nekk gi mu doon sëriñ Touba yéen ñi di ngeen ciy dara kon nag bu bis bu mel ni amee eh, jaaru nañu leeral ko ndax moom day ni ko yàlla bindee musa nangoo doon dara musa nangoo doon kenn bi nga xamante ne sëñ Ahmadou Mbakke tindoo di noppalu na ay magam yépp nekk fi mu nekk ci ginnaaw sëñ àll yum sëñ Modou Moustapha woo ko ne ko taxawu ko mu taxawu ko bañ demee kër ga mu mel na lu ko def aal daldi ne man de ñaari gàddaay yii du ci am ku mën a ñàkk muy gàddaayu teg sa dem wala gàddaayu bàyyi ko fi te gàddaayu teg sa dem de sëñ Tuubaa tax na mëneesu ko kon gàddaayu fatu rek mu fi des booba man mii dund ak moom it xam naa ne wéradi yi ñuy sonn yépp di ko jël di ko yóbbu fu ne mu dafa dem booba xam naa ne mel na ne gàddaay googu moom la bëgg boroomam defal ko ko bi ñuy dem ba yëngu-yëngu daara ji am ma xëy si mu ree ma tàpp ma loxo na ma léegi de danaa fi mën a toog liggéeyal fi Sëñ Tuubaa ma ne ko alhamdulilahi rabbil alamin mu ne ndax tuuma laa bëggoon am naa ko ni ko ñëpp amee ndax nee nañ daara jox na ma cinquante million ak oto kon mel na ne kon jëmmi daara ji kon moo fi bàyyi si Muntaxa ndax tuuma jooju nga xam ne jóge na ci daa ci moom ci daara ji moo tax kon mu ne dana fi toog liggéeyal fi Sëñ Tuubaa moo tax kon day mel ne toog gi mu fi toog jëmmi daara ji am na ci wàll ànd gi ngeen ànd ak moom it liggéeyub suñu borooma ndax moom ba ngeen jógee rek la la la leen doyloo doyloo lépp daana ji yan woon ko mu ànd ak yéen di dox jamono yu ne dangeen dégg ngeen ba tey dama leen a gëme ndax nii ngeen mel ah, ndax dana doon dëgg rek jàll waaye sunu borom ah, liñ naan dangay bëgg mbir ba mujj daanaka bu la wóoroon ne wér na it ah, sam xel dadul dal boo dee nit ku yàlla dëgg loolay waral dama leen a gëme wut ja jëmmi ngeen nekk ak moom ni ma koy waxee toujours hospital xëy moom soldaar yi Serigne Touba ndax sëñ bi lañuy ñuy lañuy la gontal amuñu feneen ab jëmu loolu sëñ yu su wax ci ne membre isbu yi itam dafa am ñaari xale yoo xam ne xam naa tey mag lañ ndax xale yooyu bi ma leen di gis booba yaakaar naa ne ay 84 85 lañ dama leen a ñuy wax benn xale bi ne ko dama dawi woon defar yaram bi mu ne ko dawi defar yaram bi mana ne tek ma ne tek len deglu mu ne ko liggéey la seigne touba defal ko say ram xana daw day defar yaram kon lolu seigne yusuf wax ne mambaru isbu tarxiya ken du ko sien ci nako sudul nona te nonu it lako seigne touba bëgge won ndax seigne touba jaadu won na ko xamantane dañ day tuddu diko tuddu fo mëna tabbi buñ la xolé ngay kay yu diine ci fofa di kay lu bax loolu de moo doon yéeneem te ca nekkoon te moom lu doon jëfe waaye loolu de yéen seen kuréel gi jëmbal na ko jëm gu wér ndax seen jëmm yi de kenn du ko xool de gis di gis lu ñuy xebat te kenn du leen dégg fennet di yaakaar nekk su du noona loolu nag ah tawfiix la joo xamante ne yàlla moo leen ko defal ah, yéen a jóg nag jaar ci yoon wa ah, boo jaaree ci yoon wa nag moom ah sunu borom moo lay gatandu ba tax na daal xam naa am na ci lu bari loo xam ne euh, waxtu wi xat xat na waaye daal xam naa ne daal euh, am ngeen tawféex ju rëy sëriñ Muntaxa it am na tawféex ju rëy ci yéen ndax euh, jataay bii de lu sedd xolam la ndax booy jëmbat mbir ah ba mu dem ba mat ba neex a wane yow mi doon jëmbat garab googa mbégte doon ci yow te yéen lu mën a xew ci àdduna njëmbatam si taxaa ngeen ci lu wér ah, loolu nag ah, tax na eh, fépp fu ngeen bëgg a àgg fu ngeen bëgg a àgg da fa àgg ndax eh, jëmmi sëñ Tuubaa ci boppam dafa am lu ñu ko mënta ñàkk defal ah ginnaaw am na loo xam ne su koo ñàkk defal nag te bu ko dee dénkaani it ñu ca gën a wér yéen ñii ci loxo ci wet yépp day jafe kon séentu leen ne eh, lii ngeen nekk lépp ab tàmbali la waaye lépp ci seen loxo la jëm si noo ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp sëñ Muntaxa yàlla da ko bind muy koo xamante ne bëggul dara ci àdduna lu dul boroomam ndax dañuy wax ne eh, maanaam eh, dëddu àdduna jafe na lool dëddu àdduna boo ci génnee sëñ Muntaxa day jafe lool ci ku ko def ndax dëddu àdduna mooy lenn àdduna doo ko soxla woo du la tax a kër kër yi lu dul lu jëm ci sa borom loola waxoon naa ko fan yee ma ne leen jëmmi sëñ Muntaxa lañ gis koo xamante ne li koy dikkal kenn xamut nu mu toll waaye day lu moomal boppam luñ mën a teg loxo moo xam materiel la moo xam alal la yaakaar naa ne du yomb a gis woowu melokaan nag dafa jafe lool ndax ku ne xam na ne bi muy sëñ Touba lépp loo xam ne dikkal na ko fi mu toll jàpp na ne moomu ko loolu day dund jamono yi mu doon sëñ Touba lépp lu ko waaye defal ñu mu wu ko ñu mu wu ko laal day defe ne lu mu ca laal rek sàcc àll sëñ Touba la ambuloo boo ko mën a jox naan ko bii yaa ko moom tam doon emblon bu rëy moom waxal bàggal rek waaye boo noppee mu dem ca kontuk Sëriñ Tuubaa ga taalibe yi nag soxla woon lool lool jëmm joo xam ne dañuy xam ne lépp lu ñu def ci moom mu def ko ci Sëriñ Tuubaa dañ koo maroon lool te xiif ko moo tax taalibe yi nii ñu futti ko ak nii ñu mel ak nii ñu yeese jëmmi ki nga xam ne moom lañ séqal tey tey ta ta ta ta muy Sëriñ Tuubaa mooy yeesal seen pas-pas mooy yeesal seen i mooy sal seenu doxin nii li yàlla def ci moom lu yàlla dogal la ndax jëmm joo xam ne niñ ko bëgge bëriwut doomu aadama buñ buñ mas a gis buñ ko bëggee noonu doon naa ko wax ci jumaa ji tey xool am ñuy jàmbat mbooloo mu bari mi ak niñ koy wëre waaye man dama yéemaat nit ñi ndax nga gis koo xam ne day kalaambitu foo xam ne moom xool jëmm ja rek la soxla woo niñ rang ci naaj wi taxaw xool jëmm jë mu romb ko mu xool ko rek la soxla woo kon noo baax a baax eh, di gërëm eh, sëñ bi moom buñ ci xuusee rek duñ ci mën a taxaw <laughs> jërë ngeen jëf def naa kon waxtu wi ñu amoon man naa ngeen jéggal ma nag sëñ Ibrahima Niang architecte eh, dafa doon koo xam dafa woyof rek moo tax mu dugg làqatu waaye ñi yor liggéeyu architecture ñu wax la maître d'œuvre bu université bi yëpp ci la bokk moom ak kañ ñaar lañu ñoo jiite lépp mu sol ni njaxasu Baay Faalam toog nii ci sunu biir yëkkati addiya bi joxe ci kon loolu dama koy seere rek ñu ñu xam ne ñëpp ay taalibe lañ ñëpp sëñ bi rek lañ soxla loolu nag ndam la waaw moom laa jox. waaw doon jottali cant gu mat sëkk ndax gannaaw bañ jëlee ndigalu def assemblée générale bi fii ba tudd ko bi ñëw ci terrain bi rek mboolem ko fi ouvrier mboolem ko taxawub liggéey aménagement yi dañ ci def yitte ju kawe kon ñoom ñëpp ñu ngi leen jottali cant tamit ci taxawaay boobu ak lépp ci responsabilité sëñ Mour Sarr sëñ Mour Sarr tamit du guddi du bëccëg fajar teel lay ñëw daara ja te moo fi mujjee jógee kon dem na ak cant gu wéer a wéer ba léegi sëñ Youssou dafa am leneen kàddu gu mu bëggoon a dolli tuuti rek nag muy sama wàllu bopp te waxal ko dongo yi kàddu googu mooy lan mooy yëgal ne ay soldaar nga am sa gannaaw ñu fas yéene ànd liggéeyal sëñ Tuubaa sàkku ngërëmam ñun ñëpp maase nañ xam ñun ñi la jege fële xam nañ ne yaa ak Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké du suba du ngoon waxtu wu nekk. doo def lu mu yëgut te waxtu nekk mu ngi la jox ndigal nga koy jotte li ñu koy jëf kon membre yëpp maa ngi leen di woo ak responsable foo mën a nekk xamal ne camp militaire bi nekk kay kilifa ga bis bu set day joxe ndigal guddi du joxe ndigal bëccëg sëñ bi sonal woo deux heures du matin ne sëñ bi ne ndigal sàngam ñu war a xëy exécuté ko fajar dana génn jàkka ji jot ndigal woote ñëw la ñu def ko daje ji ñuy dajey conseil nii nga xam ne wajuñ ko woon toog ba mu yàgg dara rot mu dajale gars yi ñu dajale tënk jóg dem defi ko loolu nañ xam ne am militaire dong dong dong dong moo koy def kon mboolem mbooloo yi ñu seqal ñu nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew ak daara ju mën a nekk nañ xam ne waxtu ñu leen wooyee rek ne leen ndigal rot na rek war nañoo jekk ñu ma maase ànd ci liggéey boobu loolu maa ngi koy woo ñëpp maa ngi koy wax ñëpp yenn saa yi ay dogal dana rot nit war a jàpp sax ne xanaa waroon dajale mbooloo mi ñëw di concerté wu ci loolu wala nangam loolu mënu ko laaju ko ndax dafa jàmp dañ ko war a def fa saasa conseil Youssou xottil di dem ñun ñëpp ñu ngi sa gannaaw fase na ànd sàkk ngërëmal sëñ Touba te am ko ci barke borom Touba. ma dolli ci ñaari baat rek ginnaaw sëñ Mourtala ndax sànq bi may daaneel dama wax ne euh, sëñ Mountakha moo wooteel boppam liggéeyu université waaye sunu sëriñ moom lu mu def ñu gis ko buñ ca jaaree rek danañ jàll. kon ana sëñ sëriñ bi bi muy woote ci verset bi bu doon lu ñuy yëkkati dañ ko yëkkati ci kaw bu mu laal suuf kon bu mu laal suuf bu mu laal suuf bu mu laal suuf bu mu laal suuf murit du attandiku murit du attandiku jërëjëf kon sëñ Ablaye Diop mën naa waaj ak waa kuréel bi waa kuréel bi sëñ Ablaye ak waa kuréel bi ñu ñaan waaye li tey ji moom ñun ñëpp dañuy bokk ci kuréel ndax ñoom na dimbali ñu bokk ci yéen waay ni ñu bëggee ci yéen mooy li sëñ Tuubaa wax ci asmaul lu batin yonent bi ñu àndal ne ko nawaytu fii an akoona fii xat yi fii daalikal xatat yi doon a kamat ko waaye bëgg nañoo bokk ci yéen fu waay toog rabbi bi maa sarawu bi suñ ko daajee nañ ko ànd ak rabbi bi maa ma Победа! هل ابن والكسوة غير سددي في خير سير قد بمددي بمدني حفى كل ذكر سير الهدي المالك المكرم المتهدي فاز سعيد بقران من ندي نجا بما يتم خير سددي فاز سعيد بقران من ندي نجا بما يتم خير سددي فاز سعيد بقران kon nag li ma bëgg rek ñu xam ne mooy pas-pas bi mooy la sëñ Abdoulaye waxoon nañ ko fas ci ñaan ñi nekk fii ñi nekk bitim réew ñi nekk ci biir réew mi te mënuñoo ñëw te ñu bokk pas-pas bâtiment bii yàlla doon suñu seere yow man xëy ci kanam boobu amiin jërë ngeen jëf ci ak xalaat ju sori ji lépp dellu ci fonk sëriñ bi rek mu gis sëñ Atou ni ñu faboo ni ñu faboo ci mbir mi xalaat ak xalaat ju rëy ji ak xalaat ju xóot ji ak xalaat ju sore ji lépp dellu ci fonk sëriñ bi rek loolu moo tax ñu déggoo. moo tax loolu moo tax ñu déggoo. alhamdulilah ndax dama dama ne ginnaaw nag léegi économie rek ci la ñu wute. ndax dafa ne ginnaaw loole économie rek ci la ñu wute. waaye fonkeel gi moom noo noo noo fa daje. waaye fonkeel gi moom noo ci daje. fonkeel gi nag. kon fonkeel gi nag na ma kon fonkeel gi nag moom na mu ko gisee. li ma ci jublu woon. li mu ci jublu woon. mooy dajale mbindum sëriñ bi rek. mooy dajale mbindum sëriñ bi rek. loolu. loolu fañ koy fañ koy def buñ ko defoon or mbaa jamaa itam. buñ ko defoon or mbaa jamaa itam. jar na lu ko. jar na lu ko. jërëjëf. loolu moo tax mu déggoo ci yéen. loolu moo tax mu déggoo ci ak am na meneen mbir mu ci feeñ nag. am na meneen mbir mu ci feeñ nag. kon liggéey bii borom mel na ne xam na ne noo ko ci nekkal. dafa mel ni liggéey bi borom xam na ne noo ngi ko ci nekkal. bañ tuddee jàngukaay bi. bañ tuddee jàngukaay bi. lii lii xalaatuñ ko ci woon. lii xalaatuñ ko ci woon. waaye moom nag. waaye nekk moom nag. moo wane ne mënuñu cee ñàkk a na ne mënuñu cee ñàkk a feeñ ñun. moom rek indi lii. moom rek indi lii. jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke yàlla na nga fi yàgg te wér jërëjëf Mbacke. waaw de. te dénk ko sa tabax bi doy na kéemaan Mbacke. sëriñ Muntaxa moo xam la nuy jëf ba am ngërëm teyit moo nu toppil sas nu jëf ndax nu am ngërëm sëriñ Muntaxa moo xam la nuy jëf ba am ngërëm teyit moo nu toppil sas nu jëf ndax nu am ngërëm tabax kër gu rëy gi ngir xasiiday sëriñ bi raw ci xaasam la nuy dibbal ñu feesal ni mañ ñaraw bu àggee jëf-jëf ji te jox jëf ji kii nu gëm di asnaa xadimil Mustafa kii du ñeeke mam xanaa nun de war nan koo berel cant gi ngërëm yu rëy sax di bay toolam di jëf lii maye ngërëm bu dee wax lu jub lay wax bu dee jëf lu jub lay jëf te yéenee ma jiital ba muy jëf lu kenn du jëf di woo tey liggéey yi jur njariñ tey jurit ngërëm diginde di dolli xam safoo kuy wuti ngërëm ya daa gën lanu yéene ba tax muy joxe ndigal ku jëf jak sa mbir jub jak doo seelu ay mbugal nu waayo xasaayin nun te jug jëf ci bii liggéey dabal yow ka raw tey wey te bul gët ci bii liggéey nu waayo xasaayin nun te jug jëf ci bii liggéey dabal yow ka tey wey debul gàcc bi liggéey këram gi la jox waayam liggéey loo ko yët waayam sëriñ aatumi waayam da koo jëf ba jox gaayam këram gi la jox waayam liggéey loo ko yët waayam sëriñ aatumi waayam da koo jëf ba jox gaayam yeneen bi sëriñ Tuubaa cofee lag lagay लकोय जगदुआम फुम्यम दको फैत पैगरे मवफी करामैगी सिरिं बीनुआम फिले कसा इल्ल फंकल यौ तजंगल बरौ फिले इलल मुंतका औसल दुकत matu di jafam ki nag lu baax di yasullu nanuy xam nanuy roy gi nanuy gëm nanuy bëggit dëgërloo sëriñ tuuba ko may li tamuy dagit basiir ñooñ lislaama ñiy bég di bégle ñu jëf réerul ko xam-xam man abat waa naa xadimil mustafa rabbi yaa samat nga jullee rabbi yaa samat subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun